الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه وفضله على كثير ممن خلقه تفضيلا أحمده على نعمة التي لا تزال تتوالى على العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالمحافظة على النعم بشكرها ونهى عن تعريضها للزوال بكفرها واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم مكارم الاخلاق فكانت بعثته رحمه للعالمين وحجه على الخلق اجمعين وصلواته وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار أما بعد أيها الناس اتقوا الله واشكروه على نعمة الإسلام أيها المسلمون بين أيديكم دين عظيم اختاره الله اختاره الله لكم ومن به عليكم ملة أبيكم إبراهيم اشتمل على كل ما اشتملت عليه أديان الأنبياء فهو خلاصتها وخاتمتها قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شورى ورسولكم خير رسول عرفته البشريه فهو افضل المرسلين وخاتم النبيين به تمت عليكم النعمه وانجلت به عنكم ظلمات الجهاله والشرك والظلم والعدوان قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ال ايها المسلمون امامنا طريق سعادة مفتوح فلماذا لا نسلكه ونتركه امامنا طريق الرقي والفلاح واضح فلماذا نعدل عنه ونتركه ونسلك طريق التأخر والشقاء والخسران أرأيتم إن دينكم قصر في إرشادكم إلى سبيل الفلاح فعدلتم عنه هل قرأتم في تعاليمه ما يصدكم عن جلائل الأعمال ومكارم الأخلاق فهاجرتموه كلا إنه دين الله الذي يبقى طريقا للسعادة والرقي إلى يوم يبعثون ما من فضيلة إلا حث على التخلق بها وما من رذيلة إلا حذر من قبحها وبين سوء عاقبتها فما بال أكثرنا يسيرون على غير هدى ويقلدون الكفار فيما حرمه الاسلام ونهى عنه قد اهمل الكثير امر الدين وعبسوا بواجباته وتجرأوا على انتهاك حرمات الله واستبدلوا ذلك باخلاق الكفار وعاداتهم وتقاليدهم فيا بئس للظالمين بدل الكهف allah tigue en dangi en palle aɗo faare mahsalle wonankanu allahu a wona allahu subhanahu wa taala kuufa islama xunnema e muslim o xa jomme naxanenga kundu dina na xamaxa xooro xoore ñaan allah anda sugandi xadang nan ponnanciraw xadanga dina ke xa faba kille ibrahim dina ke a kofmandi a logondi fo fo annabi ñimmundaga domurini ñekeyahen kamma dina i dina nin cu fo kofmante ñaani i timmandade ñani allahu dali alquran nanti allah shariyandi nga gelli dina nga fumbe aga wosu nuhudanga nayi ado kebe agada hay kattanga muhammad ado kebe a aga wasu ibrahima a ado musa do isa kendina allah subhanahu wa taala da nyamir ndenkini su sunantina kendina ya sigindi ina maha bohi baka me inan maxa fete baka me surat shura khafare be ga allah gada xay hadamaren me gada mu su tunu ñeeke yaxen kamma nanti keni faare ñayan a yan pasu xey faru. ana hayfarun timmandade allah di neman timmanditayay ada tuambala humbitan binnen quranditayay ado filla kape ado baqatintahu ado honnahu ma hemprandangiye allahu dali alquran allah fonnancirahu mumin nindan birengagada faye fare hay inohonga fare kega gelli yimmea fare ke ga kharangi kama la ayani agi sonondini ti silamaxun jikku sennunga bakka kafira mexe ado junubu agi tuyindini allah kitabe ado faren na wurginte har ganañi soroku geñi kenñangen kane i sankunta gunya sankunta kebe a bangante nyege ali imran e muslimo xa khajongo xa jongo kundu de wulliŋintaxum polla keñani allahu subhanahu wa taala gada wuñi xakane manneni xagantorono ken wulliŋintaxum polla ke manne xaga ken polla ke tokkono xa jommena xanenga de nandaga kane allahu subhanahu wa taala da folla keña wuñi xakane ado taksire Allah allahu subhanahu wa taala da folla keña wuñi xakane na xurandi mexe suntey manneni خغا ميلن بكا كينا خغا تقنم خغا تلرو كلي كلي بي اغا خسا غنا فاليا كلي بي اغا خ غرم جيغا غنوا كلي بي اغا خ پردين دنيا خد كونين دنگدي خدينا كي دفونتاهو نا فوسري نيا كوي خيبا كنياني خغا ميلي بكايبا خد كونين دنگدي يالا dina ke gada beni riti khado foya khara dina ke aga bertini hado golli kallangun ton deber nden nahamba ma jikku siru i na kan kutu jikku siru aga bertini hadi kenya na haga forogo bakka dina ke ayi ku sufe ke dina allah dina nyani ayan toko bane dina bane be ta hon kille nyageni nan daga kaane akille ñaage ni oɗo duna gillen naxa fa sanguntaxuntano ganta dina ke yaga do ñunki ona du jikkundi tay jasantaxuntano ganta aga do konundi a ŋarñuŋoyenga nan bangando danga nanti ligari buruñani manne xaani soronpo gebe iga terene kille kam mana ñikandeyen killefe manne khani soronga ya khana kafir ninga allah subhanahu wa ta'ala islama hunga do fumbe haramu nakaba soron poge bede ida dinanga nyebe yebe ida warramburu isangati dinan wajibin tafinin isa ko ha allah hormanta fininga na horma ke farsa na dangon bagiya ifrahu nditike nga jikkuni kafir nin jikkuni ñagani kunga ifrahun diti kunga ladani kafir nin ladani ñagani kunga ado kafir ni kafir nin belandi fini ñagani kunga allah ti alqur'ane ay toñogundano igada allah subhanahu wa taala dinan parahu kebe fonte bonontegenga mbokki ganaw ma sante yalla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañi taqo ragal yalla subhanahu wa taala ñu sant yàlla subhaanahu wa taala gërëm ko ci xéewal lislaam jullit seen kanam nii de am ngeen diina boo xamee ne diina bu màgg la yàlla subhaanahu wa moo leen ko tàndal yàlla subhaanahu wa taala ci yoon boo xam ne seen yoon bàyyi Ibrahima la dafa ëmb dafa tënk lépp loo xam ne yenent yi njëkk yi indoon nañu ko tënk la ci diina yenent yi yëpp mottali la ci ji diina yenent yi yëpp yàlla subhaanahu wa nee na ci alquran yoonal naa leen ci diina li nga xam ne dénkoon naa ko yenent bi tudd nuux ak li nga xam ne muhammad man yàlla subhaanahu wa taala maa la ko yónnee ak li nga xam ne dénkoon naa ko Ibrahim ak Muusa ak Isa diina boobu ma leen dénk dama leen sante ñu taxawal diina boobu mu sax fii ñu bañ a teqali ci diina boobu surat shura seneen seen yonent bi itam moo gën yonent bu ñu mus a xam ci kaw suuf moo gën yonent yi yépp moo mottali yenent yi يلا خيولم تي موم لكو موتلي صلى الله عليه وسلم موم لا ليرال بيب لندم تشدو موم لا ليرال لب لوني واخ بوكالي ولا تونيانغي ولا نونو يلا سبحانه وتعالى نينا تي القران باخينا جلتي بملن يوني يننت بو خامني تي نيوم mu leen di jàngal laaye yàlla yi subhanahu wa taala di leen sellal ci bépp jikku bu bon bépp yéeféer di leen xamal téere yàlla subhanahu wa taala alquran di leen xamal sunnam bu tëdd bi donte ñit ñi balaa lool di am dañuy nekkoon ci reer reer boo xam ne bu fes la bu bu leer la ali imran jullit yi seen kanam nii yoon texe mu ngi nii yàlla ubbi buntam lu tax doo leen dugg ci bunt yooyu lu tax ngeen bàyyi bunt yooyu seen kanam nii yàlla subhaanahu wa ubbil na leen leeral na leen yoonu yoonu développement ak yoonu texe lu tax ngeen di dumayu ci yoon boobu ngeen di bàyyi yoon boobu ngeen di dugg ci ay yoon yoo xam ne dañ dafa leen di tardeloo dafa leen di toskare dafa leen di indil toskare dafa leen ñàkkaloo wax leen ma ko nettal leen ma ko ndax seen diine bi yàlla subhaanahu indi dafa am mànke manqué boo xam ne ba orienté wu leen ci yooni texe ci yoon njub loolu tax ngeen du moyu ko wala da jàng ci jàngale bi nga xam ne diina bi indi na ko loo xam ne dafay dox seen diggante ak jëf yu mag yi baax ak jikko yu baax yi looloo tax ngeen gàddaaye diina bi bàyyi ko déedéet du lu yëpp diina bi de diina yàlla la subhaanahu wa moom kese mooy des fii nekk yoon boo xam ne yoon bu la yóbbu ci texe ak développement ba bis penc ndax diine bi bàyyil benn ngeneen lu daf leen encouragé daf leen xemmemloo ngeen jikkoo ay mbir boobu bàyyiwul benn benn meloo bu suufee lu dul diine bi daf leen ko tere mu leeral ne leen ne loolu nekkul mujj mujj bu rafet lu tax ñi gën a ci ñuul di jaar ay yoon yoo xam ne duñu yoon yoon jub lu tax ñi bari ci ñoon di roy yéeféer yi ci li li nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala araamal na ko tere na ko ñi bari ci ñun sàggane nañu mbirim diina ñu fowee farata yi ñeme itam di xaw yi sutura yàlla subhaanahu wa ak orma yàlla yi subhaanahu wa di soppi di wéccé yoyu ci ay jikko yo xamné ne jikko yéfer la ak aada yeefeer yàlla subhanahu wa taala néna ci alquran ak ñaaw kat yi liñu soppeli liñu wéccé diine yàlla subhanahu wa taala aqulu qawli hada aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون إن دينكم دين عظيم هو صلاح البشرية جمعاء فلئن رخص فلئن رخص لديكم فلن يرخص لدى الذين ينشدون الحقيقة ويلتمسون أسباب النجاة إن دينكم يريد منكم الصدق والصبر والجلد والبذل في سبيله وصد الحجوم المعاد له والأخذ على أيدي سفهائكم عن العبث بتعليمه وإلا فيرحل عنكم إلى غيركم فتخسرون الدنيا والآخرة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سورة محمد الله تيجي عندنا جنب الله رفارم مخصلي muslimo hake dina kundu dina hadamire hadamaren maxu susu siroyen kitene ke dina gelle xagana ke dina xagana yebe yebe a serebeni ga tongu ñamurunu kunte yebe yeben de in wuttuwa serebeni iga ni cebabunu ñamurunu inte yebe yeben in wuttuwa hake dina kundu ama fofo muru hama xa gantati tongu ado munye ado khotoye sembe sebetiye fonnan chirahu kuye allah subhanahu wa taala kille na dukini allah subhanahu wa taala kille ado namberti honnaku ado aɗo honnaku katke tegeni katta ke dina aɗo hawyubeni gahanohon hani kittullaga hanan maga alqur'ane wari maga iga sangatini allahu subhanahu wa taala gada haramudi surubeniti ke dina kundu gelle xagama ken deɓersu dina ke a girindinina de a telleya a dugutan xayya a xanda duguta xay serten niyana dina ke wut kun serten ni gana dina ŋutu kembire xa na toxo xana kume duna do laxara laganno tanga allah subhanahu wa taala ti suratu muhammad gelli xagana xa falle koy dina keyi naxa faraxunu soroten niya i de xaganta bana nokoma surutan niyaritini ida haganta bana kunga igana dina keraga أنت دوغو تنيا ñano ho xam ko اللهم بصرنا بالإسلام وثبتنا عليه إلى يوم نلقى غير متبدلين غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين وأصلح قلوبنا وثبتها على الحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه innaka anta alwahab mbokk yi gannaaw bi ma sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen xam ne diine bi ngeen yor diine bu màgg la mooy baaxee doomu aadama yi yépp boo leen ko woyefal doyadil ko ñii utti dëgg de ñoom duñu ko doyadil dañu koy nangu dañu koy jël ñi nga xam ne dañu ut sabab yi tax ñu mucc ñoom duñu ko doyadil dañu koy jël diine bi dafa sàkku ci yéen ngeen déggu ngeen muñ ngeen sax ci doole ngeen joxe seen bopp ci yoon yàlla subhaanahu wa taala ngeen taxaw ci kanam bépp noon noon boo xamee ne day dafay xeex diina bi ngeen jàpp loxo yi nga xam ne gaa ñi amul xel te ñu nekk seen biir ngeen jàpp seen loxo ngir ñu bañ a fowee jàngale diina bi soo leen ko deflee diina bi de dina toxu ci yéen bu toxee ci yéen ci ñeneen lay jëm te bu demee ci ñeneen yi ñoom dinañu ko nangu dinañu ko jël dinañu ko téye téye bu war bu boobaa yéen da ngeen di perti fii ci àdduna ak àllaaxira yàlla ñu yàlla musal yàlla nee na ci alquran boo leen dummuyu diina bi ngeen wonee ko ginnaaw dilaa leen soppali yeneen xeet yu dul yéen ñoom bu ñu amee diina bi du ñu mel ni comme yéen ñoom dañu koy nangu jëfee ko li mu waree أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم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 وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر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 أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر الله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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله